asalaamaaleykum mbokku internet soppe yi ak téléspectateur yi taamu bëgg safoo la TMS TV euh, comme on a l'habitude de le faire comme on a l'habitude euh, de voir tous les mardis et les samedis fii ci kër Alaaji Thierno Moule saw euh, di ñëw ci clinique bi entouré de sa sécurité tey nag mardi mu nekk jour bu spécial comme on a l'habitude de le faire mu nekk benn jour boo xamante ni jour de consultation la waaye itam jour bi nga xamante ni Alaaji Cerno Mule Sow daf si daal di joxe li nga xamante ni moom mooy euh, garab yi tey boo duggee ci biir comme niñ ko tàmmee di ko gisee lim bu takku mooy taxaw di ko xaar euh, pour jël li nga xamante ni moom mooy euh, médicament yi wala sax remède yi muy jagleel askan bi nga xamante ni amee nañu feebar waaye di ko jagleel askan bi nga xamante ni tey nekk nañ ci tolof tolof Europe Asie États-Unis Amérique New York ku nekk la waay di jóge fu ne la waay di jóge daal di wutal si ci kër Alaaji Thierno Moule Sow moom nag comme il a l'habitude di la faire buy ñëw ànd ak sécurité bi donc Konaté moom mooy chef de sécurité bi ànd ak euh, Matar mi ci sécurité bi waaye itam euh, mi nekk ci commentaire yi waaye nekk euh, chauffeur bi moom tamit daal di ñëw ànd ak le xalif général des djinns le roi de la médecine traditionnelle du monde le roi de la médecine traditionnelle du monde di Alaaji Thierno Moule Sow il est là il est là habillé en tout bleu daal di def jersey am moom nag vous savez que dafay def liggéey bi ak passion c'est-à-dire que passion bi mu koy def moo tax dafay feeñ à travers li muy solo port vestimentaire bi yëpp dafay wane li nga xamante ni moom mooy cofeel gi muy ànd def liggéeyam ci li nga xamante ni moom mooy consultation bi waaye itam heure bi nga xamante ni moom lay joxe garab bi le marabout modèle est là en toute élégance parce que éloquence bi à chaque fois danga koy gis accompagné di nga xamante ni mooy ñaari iPhone 13 yi comme on a l'habitude de le dire Moustapha nee na lépp ay njàngale la ndax dafay wan ne liggéey bi boo koy def danga ci war sol lu baax def war ba mu baax pour ñëpp keneen ku koy gis di daal roy ci li ne mel Il la là, le Khalif général des djinns, Alhaji Thierno Moule Sow est là et répond à l'appel des patients et répond aussi à l'appel de tous ceux qui sont qui par des jiin waaye itam de tous ceux qui sont maintenant dans des moments difficiles et koo xamante nii tey jii dafay ut li nga xamante ne nii moom mooy saafara ci tolof tolof bi ci tolof tolofam ak ci métit bi mu nekki moom ji Thierno na Sow il saw il est là il répond à l'appel euh, de la population euh, sénégalaise en toute accompagnée de sa sécurité composée de ki nga xamante ni moom mooy lieutenant Diop de Matar et Konaté et le peuple nee naa est présent tout le peuple est là pour jël li nga xamante ni moom mooy seen remède et comme niñ koy waxee que liggéey bi passion la koy defee ndax dafay feeñ sax ci la ni muy demee waaye dafay feeñ aussi ci li nga xamante ni noonee lay solo moom la xalif général des djinns le roi de la médecine traditionnelle du monde di Alaaji Thierno Moule sew yegsi na fii nga xamante nii nag fii la ñii di joxe li nga xamante ni moom mooy patient yi ils sont là taxaw di xaar la xalif général des Djinns egsi na mu ngi nii ànd ak ñi nga xamante ni moom mooy sécurité am waaye itam ànd ak li nga xamante ni à chaque fois nit ñi xamee nañ ko ko muy baatin bi waaye itam di xam-xam bu sell bi waaye itam di fàcc bu wóor bi egsi na moom Alaaji Ceerno Moule Sow euh, daal dina yegsi fii ci Cambérène 1 en face terrain jamono comme nous l'avons l'habitude de le dire que liggéey bi passion la koy defee et passion bi nga xamante ne ni moom la koy defee nag dafay feeñ ci li nga xam moom mooy habillement am waaye itam dafay feeñ ci façon bi nga xamante ne ni mu ngi ko koy def saa yu egsee nag da ngay gis képp koo xamante ne ni tey il est possédé wala elle est du nangu sax di ko xool loolu nag c'est la prouve baatin bi nga xamante nii amee na ko waaye itam dafay prouver li nga xamante ni moom moom da koy def waaye itam ñu ngi leen di fàttali que toujours ñu ngi ci Cambérène tey sëriñ bi nekk ci promotion li nga xamante ni àdduna yëpp doon nañ ko sàkku muy via muy vite fait bi di cuuraay bi di big beeg yëpp ñu nekk en promo ñu ubbi ko nag ci ndigalu ak kii ñi nga xamante ni di mooy ndigalu sëriñ bi ak li nga xamante ni à chaque fois ñëpp dañ ko doon xaar ci moom mu yegg si moom la xalif général des ji habillé en tout bleu daal di ñëw dugg ci fi nga xamante ni moom mooy clinique bi moom bu yegg rek àdduna wërngel képp xam ne dugg na fi nga xamante ni moom mooy Cambérène ndax da ngay gis képp ku possédé boo yegsee da ngay ñëw daw utal si fii boo ñëwee question buñ lay laaj lan moo la fi indi gis ne jinne yi ñoom ñoo lay c'est parce que il est le khalife général des djinns le de la médecine traditionnelle di monde mu ngi nii nag yegg fi nga xamante ni mooy waral salle de consultation. te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee te dëgg-dëgg war naa ñoo gisee kone Sénégal war naa ñoo gisee doomu ndey am nañ seen ko gisee mbokku téléspectateur yi ak internautes yu TMS TV le xalif général egsi na il est installé ci siège bi nga xamante ni moom mooy siège royal bi daal di toog comme ci fàttali mardi mu nekk jour consultation waaye itam nekk jour bi nga xamante ni euh, daf si daal di joxe garab bi euh, sëriñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa sëriñ bi ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la jox sa wàccuwaay tey di bisu di mu nekk jour boo xamante ni euh, jour bu spécial la ndax dañuy tàmm gis ngay consulter en même temps euh, di joxe ay garab euh, mu nekk tamit jouru promo bi nga xamante ni yaa ngi koy def. Euh, ñu bëggoon xam jour de consultation bi nga xamante ni en même temps da joxe garab est-ce que yeneen jours yi tey ci promo bi mu tombeel di rek ngay joxe garab yi nit ñi commandé wala samedi aussi ku ñëw dina la dina mën a am ci garab yi nga xamante ni tey euh, moo nekk en promotion. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di sant suñu borom bu baax di julli ci yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokku jullit yi di nuyu mbokku taalibe yi di nuyu Kara macha allah. du nuyu ñëpp ñu ngi seetaan à travers TMS TV di am kontaan ak mbégte lool macha allah di dellu fii ci liggéey bi macha allah mardi bi gis nga dina am ñu ñëw pour consulter dina am ñu ñëw aussi pour jël garab euh, promotion bi ñu ubbi tamit am na ñu bëri ñu ma woo nekk bitim réew commandé vite fait bi ñuy sangu ñi cuuraay ñii aussi vite fait bi ñuy naan macha allah ndax fan yi moom. Euh, ñii ñi bëggoon nañ garab bi ñii ñi xiifoon nañ garab bi loolu xam ngeen ne garab yi dafa am njëriñ te garab yi dafa am baatin boo xoolee ñu bari ñi ma doon jëflanteel macha allah actuellement kenn ku ne ngi am jàmm soo ko gisee bu njëkk ak léegi am na changement ci koom ndax nag boo xoolee luy dëmm lii di rab lii di jinne nga xamante ne dafa sonal askan bi dafa lëjal askan bi loolu nag macha allah xam ngeen ne man maa ci mën dara. Euh, macha allah gis ngeen ñu bëri ñi ma jàppale ñu bari ñi ma faj vraiment am na ñi nga xamante ne dañuy daanu te gis ngeen bu ñu daanoo lépp la ñuy wax li nekk ci ñoom mooy wax mooy rab yi mooy jinne yi wala dëmm yi macha allah ñoom it gis nga ñu bëri jaar nañ fi faj nañ leen ba ñu wér ba dem nañ doxi seen soxla nekk seen i yëfu bopp ñeneen yi aussi euh, dañuy am ay rab am ay jinne waaye du ñu daanu ñoom dañuy nekk euh, mbir mi daf leen di sonal. loo dugg ñu yàq ko loo yaakaar mu tas su dee jigéen nga bëgg sëy góor gu ñëw mu dàq su dee góor nga bëgg am borom euh, soxna jigéen ju ñëw mu dàq macha allah wala boo sëyee ñu yàq sa ëmb indi la ay jafe-jafe wala bu dee góor ñu téye sa ngóora macha allahu daal euh, dafa bari euh, dëmm yi li ñuy def ak jinne yi ak rab yi dafa bari waaye nag garab bii macha allahu damaa ubbi occasion may ñu bari occasion parce que ñenn ñi bëggoon nañu faju xëy na amuñu moyen waaw léegi nag dañuy profité jënd ci garab bi euh, utiliser ko garab bi dina leen jàppale dina leen dimbali bu baax a baax waaw macha allah boo demee ba am moyen nag nga ñëw faju ku am moyen tamit mun na ñëw faju waaye boo amul moyen mun nga tàmbali ci garab yi parce que dina la dimbali am na ñi nga xamante ne daawuñu nelaw guddi mais bu ñu utiliser cuuraay bi dañuy nelaw ba yendoo am na ñi nga xamante ne daawuñu nelaw bëccëg macha allah du ñu am jàmm du am salaam waaye bu ñu amee ci produit dañu am jàmm. am na tamit ñi nga xamante ne ndeysaan faju nañ fii ba wér ba ñoo ngi bitim réew am na ñu ma ci woo ñu ne vraiment faju nañ ba wér waaye dañu bëggoon ci cuuraay bi macha allah wala dañu bëggoon ci vite fait bi pour nga jaay ñu garde garder ko ndax vraiment dimbali nga ñu macha allah am na tamit euh, Ousmane aussi euh, suñu benn patient euh, jabaram ñaanal nañ ko ba mu am doom vraiment ba ñu ba mu tuddee ñu doom muy Thierno Moule Casamance Junior moom it woote na ma sànq vraiment yónnee na xaalis nee na dafa soxla big bi ak cuuraay bi te moom jabaram jaar na fi faju na ba wér macha allah waaye xam na njëriñ cuuraay bi mu yónnee mu yónnee ma xaalis trois cent cinquante mille nee na bëgg na benn big ak cuuraay xam nga cuuraay bi bu dee Sénégal deux cent mille la waaw fan yëpp nag ñi ñaa ngi may yónnee xaalis ay Wave macha allah ay Orange Money wala ay ay Ria wala ay mone MoneyGram euh, di commander ci produit yi ndax produit yi xam nañ njëriñ ji daal. parce que li ma ciy def damay jël suma temps def ci suma xam-xam jël suma temps def ci sama baatin moo tax boo ko laalee rek foog nga sentir foog nga yëg carrément lii ma laal am na njëriñ te lii ma laal baax na ndax boo daawul nelaw guddi vraiment nga jël ko di nelaw boo daawul am xëy nga jël ko di am xëy ah wax dëgg yàlla moo tax produit bi gars yi ñoo ngi commandé même ci oto bi sax ñoo ngi may woo euh, macha allah di def commandé di yónnee ay livreur macha mbir maa ngi noonu daal macha allah dañ ko ubbi rek. Euh, def benn promotion soxna Anta pour quelque temps rek après ñu tëjaat ko t-shirt yi tamit am nañu si commandé waaw indi nañ t-shirt yi am nañu si commandé aussi kon ak photo yeeg yooyu produit yi daal moo ngi nii nit ñi ñëw ma ko gën a xam ndax wax dëgg yàlla euh, c'est pas la première fois jënd nañ ko fi jëndaat ko fi dem ba ci digg bi ma tëj ko euh, macha allah nit ñi di woote fu ne partout dans le monde waaw pour l'instant disponible na macha allah waa samedi ak mardi. samedi ak mardi ci laay nekk ci kër gi fii di liggéey waaw yeneen jours yi du ma nekk fii maa ngi ci yeneen i bagages mais samedi ak mardi euh, macha allah laay nekk fii te wax naa leen aussi téléphone yi man maay uyu man macha allah euh, man maay uyu téléphone yi te fan yi may uyu téléphone baax na trop ndax da ngay gis am na ñi nga xamante ne nee na woo nañ la ba sonn sëriñ bi mënuñu la jot vraiment bëgg nañ liggéey ak yow bëgg nañ jëflante ak yow mënuñu la jot vraiment même ay kilifa tamit woo nañ ma ñi xamante ne daan nañ ma woo waaye daawuñu ma jot. waaw ñu maanaam daal li ma jël téléphone bi tamit baax na xam nga téléphone bi bu njëkk maa ko yoraloon sama bopp man maa daan uyul sama bopp bu njëkk macha allah mu dem ba ci digg bi ma ut ay secrétaire ak yooyu macha allah noonu la parfois nga jël téléphone yi di wax ak nit ñi parce que nit ñi dañu may soxla partout dans la monde ay kilifa ay nit ñu baax su may nit aussi fan yi li ma yor téléphone bi macha allah euh, retrouvé naa ci ñu bari ñi nga xamante ne vraiment euh, bu ñu ma woowee sax ñenn ñi dañuy jooy ba pare parce que dañuy wax déedéet du sëriñ bi. maanaam gëmu maanaam gëmu ma ne sëriñ bi laa jot ma ne ko wallaahi sëriñ bi nga jot macha allah ñu waxtaan ñenn ñi jooy duñ ma gëmee ka waa waaw loolu nag sant suñu borom rek nag ñu ngi julli ci yonent yàlla Muhammad salaa salaam euh, macha allah liggéey bi comme d'habitude rek ñun moom macha allah yàgg nañ ci liggéey bi euh, prouvé nañ amul lu ñu maanaam amul lu ñuy prouvé ti ndax nag ku faju ku ku ku def ay ñaan vraiment ba jënd clinique bu deux cent quarante quatre millions moom laa ko jëndee. nii nii nii nii nii nii nii maa ngi ci travaux yi am na yi bees yi ma ci bëgg a defar vraiment macha allah presque xaalis bu bëri dugalal na boo xoolee clinique bi ndeysaan war naa ci dugalaat cinquante million fu mu nekk nii waaw waaw parce que fan yi rek dinaa génne benn vingt million rond yi nga xamante ne dama koy dugalaat ci clinique bi pour yeesalaat ko pour rafetawaatal clinique bi macha allah sànq rek maak ñoom Matar ñoo ànd ak euh, konaate am yi ñu doon dem jëndi ak yooyu peinture pour ñu gën a liggéey liggéey bu efficace macha allah préparer aussi foofu. aménagé waat ko ba mu rafet ba nga xamante ne macha allah képp ku ñëw képp ku ñëw foofu dina xam ne ah ñun kat vraiment ah, macha allah defar nañ ba mu rafet changé waat salon yi ak yooyu yëpp nañ ko def defaraat foofu ba mu rafet incha allah vraiment noonu la kon man liggéey bi vraiment euh, euh, man jox naa ko ak am ndax liggéey naa ci wàllu ñaan ci wàllu faj ba génnee deux cent euh, non léegi sax du deux cent léegi kay trois cent millions la parce que deux cent quarante quatre millions. jamono yee <laughs> def naa plus de vingt plus de trente million nii nii nii nii nii vingt millions génnaat na presque trois cent millions valeur de trois cent millions daal mu ngi ci kër gi kon nag kon wax dëgg yàlla ah boo booy faj ba ba génnee valeur de trois cent millions ci clinique ah wax dëgg yàlla defe naa ne euh, wàccoo nga ak faj waaw wàccoo nga ak faj macha allah kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax valeur de trois cent millions la léegi waaw parce que yi ma ci yi ma ci ma ciy defar macha allah gis ngeen coffre bo euh, euh, coffre bois yi maanaam euh, macha allah daal fan yi néew incha allah dina pare bu ñu yàlla dimbalee su paree foofu laay dellu foofu laay liggéey vraiment fa laay consulter mooy Jili Mbay à face géej gi macha allah ci kàttanu yàlla kon nag mbir maa ngi noonu soxna Anta ñi ñaa ngi may woo partout dans le monde di commandé waaw. jërëjëf sëriñ bi kàddu yi leer na naññi kon nag comme ni ngeen ko waxee promo bi ubbi na. Euh, tous les mardis et samedi fii nga xamante ni moom mooy ci clinique bi euh, fi nga xamante ni mooy mooy Cambérène on en face terrain jamono yéen a ko doon laaj nag yegg si na kon bu ko kenn wutee laata nag ñuy tëj dañuy bàyyi Matar comme on a l'habitude de le faire mu daal di ci sànni kàddoom yi nga xamante ni c'est toujours pertinent ñëpp daal nañ koy apprécier ma ñu ngi lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay. waaw waaleykum salaam soxna Anta ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbokki TMS TV di nuyu la xalif alaaj Cerno Moulay Sow king of the king king of king di nuyu ajaratu Mariama Kamara di ko ñaanal bu baax mu yàgg fi macha allah di ñaanal aussi euh, soxna Oumy macha allah di ñaanal presse Moulay moom it mu yàgg fi lool di ñaanal tamit way juróom woow tamit madame Sow laa ren tubarkàlla di ko ñaanal mu yàgg fi lool moom tamit te ànd ak wér macha allah di waxaat ne comme ni niñ ko defee woon rek ñëwaat nañ fii tey ci clinique bi ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi macha allah patient yaa ngi ci suuf partout dans le monde nit ñaa ngi fiy jógee ñëw di sàkku si lii nga xamante ne macha allah mooy vite-fait yi ak cuuraayu volcan yeeg joni joni yi nga xam ne tubaar tubaarkàlla bu la fekkee ci njàqare da lay gindi teg la ci yoon tubaarkàlla nga xam ne bi ko sëriñ bi tàmbalee yàgg na lool. boobu ba tey nit ñaa ngi ciy gis seen bopp am na ñuy jóge ba Casamance ñii di jóge ba Guinée te dañ ne ñaan gu baax boo ko bëggee da ngay dem Casamance mais defe naa ne fi mu ne nii waa Casamance ñooy daw si di ñëw Ndakaaru fii di ko fekk fii ci Cambérène ci clinique bi clinique bi macha allah ci suuf a ngi fees dell ku nekk ñëw di sàkku si ay ñaan macha allah ba biir réew biti réew nga xam ne fit fay dem na fu ne ci àdduna chaque jour ñu ngi koy jëlee fii di ko yóbbu macha allah ci GPS yi ñu ko yóbbu fu ne partout dans le monde fii ba siin garab yi dafay dem tubaarkàlla nga xam ne lu mu fekk ci yow macha allah da koy raxas ba mu set wecc bu dee da ngaa kumu bu dee ay raba la bu dee jinne la bu dee seytaan bu dee dëmm lu mu mën a doon ci kàttanu yàlla sëriñ bi dina ko capturer. raxas ko ba mu set wecc yow rocc ko sànni fële kon ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool macha allah ndax mi ngi faj ràgg-ràggi xol yi macha allah li mu wax rek ci laay delluwaat ndax képp koo xamante ne da ngay liggéey rek sunu borom dina la fay moom nag dafa am fayu sunu borom subhaanahu wa taala ndax dégg nga lim la wax léegi clinique bi nga xam ne moom la jënd fële ca ci cité Jili Mbay nga xam ne foofu pàkk rek boo ko fa bëggee 100 millions mayu la ko moom mu jënd fa kër gu pare macha allahu ba pare réceptionné ko commencé waat ko à zéro dolliwaat ci ay millions yu baree baree bari macha allah changé li nga xamante ne fekk na fa ay aluminium yu baax aluminium yu baax macha la fa fekk. waaye bi mu ñëwee dane dama koy dindi damay yeesalaat lépp def lépp muy vitre daal di def ay coffret bois ci maanaam balkon bi nga xam ne euh, R plus 3 la mais dafa changé balcon yëpp macha allah changé li nga xamante ne mooy karo ya def fa ay marbre macha allah def fa ay lumières yu mucc ayib waaw kon nga xam ne kooku delloo na faj njukkalam daal ne nag sama patient yi fii laa leen di indi incha allahu rabbi kon allah cernu mu lay sow gàcce ngalaama lu ne fàng nag. kenn du ko jeex am na ñu ne woon mënu ko ñii ne du ko def ñii ngi ne nuut ñii ne yàcc ñii ne yasar loolu yàlla dogal alaaj Thierno Moulay Sow nag moom la fi yàlla teg ku mu neex ak ku mu naqari moom la fi yàlla teg ndax garabam yii doo ko am fenn de doo dégg mukk ku def benn témoignage ci benn garab fii jamono toll actuellement man YouTube rek laay liggéeyal YouTube rek laay dugg guddeeg bëccëg maa ngi ci kull koo xam ne da ngay faj fii ci Sénégal li alaaj mu lay Sow di dégager ci personnalité dégager woo ko li mu defit defoo ko ndax ku jënd clinique mënoon koo dëkkee mënoon koo defee lu ne mu jënd ko ne kii kat dama koy defar ngir patient yi macha allah gàcce ngalaama delloo nga lislaam njukkalam bokkul nag weeru koor yeeg yi fiy jaar macha allah nga xam ne day dajale julliti yàlla yëpp dajale jaam yàlla yi ndax cant mooy yokkute te allah Thierno Moulay Sow tolloon na jamono boo xam ne fële ca 19 am na ñu ko doon xatal déggoon naa jinne yu ne ko di nga am fu yaatu pie dans l'eau ngay am kon ku ko gëmul ba tey jii dootoo gëmati dara ndax nag ah lu ne fàng kenn du ko jeex waaw ndax fee mu dem ca jili mbay tubaar tubaarkàlla yaatu na lool macha allah kon faj am na solo waaye mën la ngay defit am na solo alaaj cerno mu lay sow nag baatinam wër na àdduna kon ant damay teg foofu sama baaraam ba ci kanam ndax li duuf ci nag wi xajul ci cin li te defe naa ne ku ku yenu cin li yi danañ la topp donc alaaj cerno mu sow daal pour ñëpp la mooy ndimbalaa kon bi mooy cantaa kon bi mooy xéewalaa kon bi kon nag daw si leen gaaw produit yaa ngi noonu macha allah. jërëjëf Serigne Matar kàddu yi am na solo comme ni nga ko waxee ci wàllu socialu Alaaji Thierno Moule te kilifa bu mag dafa am habitude di wax ne koo fekk ku bëri xam-xam du soxor koo fekk ku bari xam-xam du iñaan loo mu am da koy bokk ak doomu aadama yi et li nga xamante ni alaaji Thierno Moule Sow mu ngi koy comporté woo ci nit ñi di ko comporté woo ak ñi muy faj ak ñi muy liggéeyal ak àdduna wërngal képp on est un parfait exemple donc dañ koy ñaanal yàlla bàyyi ko ak mission yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam ndax dund lu mu am na njëriñ waaye di leen woo yéen ñëpp mardi et li ngeen profité wu ci occasion bi ndax promo bi kat lu ñëpp doon xaar bi yegsee na ci ku nekk rek fexe am wala mu laa rëcc ñu leen di wax ngeen teg foofu seen baaxam ba ci kanam incha allah. mbokki téléspectateurs yi ak internautes yi comme ni ngeen ko gisee euh, patient yi nag ñu ngi nii di yéeg ndànk-ndànk fii ci kër Alaaji Thierno Moule saw euh, ginnaaw bi nekkee ci salle d'attente bi euh, ci suuf bu sëriñ bi di yegsi da ngay gis que ñoom ñëpp ñu daal yéeg. ba ci kaw daal di ñëw ci saal bi nga xamante ne ni foofu la xaare la xalif général day kii di alaaji Thierno Moule Sow vous avez vu di ay kilifa fu nekk la nit di jógee di xaar li nga xamante ne ni moom mooy thérapie bi comme je vous ai annoncé que jour mardi bi jour bu spécial la ndax jour de de consultation la waaye itam journée boo xamante ni aussi eh, dañuy joxe li nga xamante ni moom mooy eh, gaxab yi eh, fii ci Cambérène 1 en face terrain en toute organisation Konaté comme il la l'habitude de le faire di joxe ay gel antiseptique yi waaye itam di installer patient yi pour ñu mën a xaar nga xamante ni a xaar la xalif général des jéem comme il a l'habitude de faire à chaque fois buy jël li nga xamante ni moom mooy dugal patient yi da ngay gis ñi nga xamante ni mu leen di defal ay gel antiseptique yi daal di leen placer avec euh, benn organisation boo xamante ni c'est incommensurable il vérifie d'abord les sacs lépp nag ci wàllum sécurité bi lépp ci professionnalisme bi nga xamante mu ngi koy amal ci liggéeyam macha allah ils sont là ils ont répondu à l'appel et ils attendent la thérapie du khalife général Djiné di Alaaji Thierno Moule Sow ils attendent les remèdes pour mieux se consulter waaye itam mën a recevoir tout ce qui s'est yi waaye recevoir seeni médicament kon nag ngeen teg foofu seen baaxaam et bala ñuy tëj di leen fàttali promo bi mu ngi fi venez et répondre massivement pour mën a daal di tàggoo li nga xam moom mooy seen i tolof tolof.